borom Touba kon mbokk yi niñ ko àndee ak yenn suba ak léegi fii ci Touba ci euh, complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ci ubbiteeg daara ji nga xam ne nii. cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke moo ko woote woon gis ngeen mbokki taalibe yi ñëw nañu njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall daal di teew nii nag niñ ko àndee ak yéen rek ñu fa yéene taataan ay kàddu yi nga xam ne nii kaddoy barkeelu la gannaaw seen teewaay ànd ak taalibe yi di ko barkeeloo ci zikrulaa di ko dundal ci zikrulaa kon incha allahu rabbi euh, ñu ngi fii di leen xamal ne Serigne Fallou Fall mu ngi nii toog Serigne Moustapha Fall Mbar mu ngi toog ak mboolem kilifa yi nga xam ne nii ñoo nekk fi nga xam ne nii moo di ci Baye Fall gi. mbokk yi jërë ngeen ci turu Serigne Fallilou Fall jëwriñu sëñ Modou Amita di jëwriñu Serigne Cheikh Fall sëñ Modou Moustapha Fall mi nga xam ne mooy jëwriñu Serigne Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda Serigne mun Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg loolu te ànd ko wér Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda yàlla na fi yàgg te ànd ko wér ak mboolem njabootu Cheikh Ibrahima Fall mu mel ni Serigne Amdi laa jot ndigal ci Cheikh Mouhamadou Mountakha tey jii di bisub altine di fukki fan ak juróom ci weeru tubaab ci daaray Cheikhul Khadim jii ñuy wax université Cheikh Abdoul Ahad nga xam ni sëñ Tuubaa sëñ Mouhamadou Mountakha Mbacké daa am lu mu fi naaloon ba tey jii nag saa borom dogal am lu ci sotti mu bëgg daloo waaye mu woowoon nag réew mii ak bitim réew góor ak jigéen mag ak ndaw fu ab taalibe mën a ne sa yaakaar ne ci sëriñ Tuubaa rawatina waa kër Cheikh Ibrahima Fall tey jii ñu ñëw fekk ko fii ci daara Cheikh Abdou Lahad Mbacké ji li université bi nga xam ni sëriñ bi moo jox ndigal sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda ni ko damaa bëggoon su altine ca 9h na nga xëy si fii ànd ak mboolem njabootu Cheikh Ibrahima Fall gi yëkkatil ma turu yàlla ba ñëpp a xam ni fu Serigne ma nekk fu ne Cheikh Ibrahima wet ga nga xam ne kon géew baay nii ngay gis eh, Serigne Fallilu toog nag tey jii ci kanamu waajuram yëpp. ndax ni ko Cheikh Moustapha Fall jëruñam jee di waxee tey foo dem ci kër yi sëñ Fallu mooy jëruñ ja moo tax ca fajar la xëy si ànd ak Cheikh Moustapha ak njaboot gi ñu jiitu si fii ngir xolal serign bi li nga xamni mom la diglé muy serign Muntaxa xolal ko serign am di ci so ba tak tay nak ñi nga and ak seen waajur yi ña nga nee toog waaye ak talib yi ci turu yalla bi ca fajar lan ko tàmbaloon ba dëgg si ndax bi ñewé dem nañ jiitu ji xol fa bass ba nga xamni fa la serign Muntaxa mbak wara tambalé wara tok and ak president de la république fa lan ko ñëw fi ak talib yi ñu turu bi murid yi ñew fi nak ngir bëgg yëkëti ay cadeau ci turu serign Falilu murid yëpp dégg ko ñu bass serign Falilu Faal mbokki taalibe yi sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ci nee ci ndigalul Cheikh Mamadou Moustapha Fall ñu koy wax sëriñ Amdi Modou Mbenda xalifa général de Baye Fall moom la sëriñ Muntaxa Mbàkke joxoon baat bis bi nga xam ni. ci la bëgg ubbi daaray Serigne Touba ji. ni woon nag waa kër Cheikh Ibra Fall. nan jiitu ci liggéey bi. indi fi turu yàlla wu wér. sëñ am di Modou Mbène nag. yebal fi ay rakam ka ca jiitu ji jëwriñam sëriñ Cheikh Fall moom sëñ Modou Moustapha Fall ñu gën koo xam ci sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng ak mboolem rakam yépp kenn desul rakam yaa nga nee toog waa kër maam Saliou Fall rakk Cheikh Ibra Fall ji ña nga nee toog ak nun murid yëpp ñu ngi ni ànd ak moom ñëw ci ndigalu sëñ Tuubaa yi kon nag sëriñ am di Fall nee na. yéen ñi nga xam ne yéen la yilif. te fu sëriñ bi yat ten joxoon ko ndigal mu woo leen. wuy si ngeen ko de. woote nag. mooy kaay leen jël. ku mën na ñàkk da ngay dem jëli. kon nag Serigne Amdi Fall mu sëñ Modou Mbène nee na. mi ngi sant rakkam yi tedd yi mu bokkal Cheikh Ibra Fall. di sant mboolem kër Cheikh ra faal gépp ak seexam yëpp. ak muritam yëpp. di leen xamal ni li sëriñ bi bëggoon ba tax mu woo leen. def ngeen ko de. ndax woo na leen. wuy si ngeen ko. nee na kun woo nag. nga wuy si. wàcc nga. kala woon moo ci des. nee na ñun nag ki nu woo. li mu bëgg. mënal nañu ko de. kon yàlla nañu ko defal. sëñ baa ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp. na xam ni lii moom. bis la boo xam ni. bisub lislaam la. waaye dina am taarix nag. ndax lu àdduna gën a dox. liggéey bi gën a dox. ndax liggéey bi sëñ Tuubaa kon sëñ baa nga sant ñep di nih ñëpp neena ni jaay nih bi tam neena ni ngeen di def sedd na xolum sëñ bi media media bi de sedd xolum murit yep ndax and gi ngeen àndandoo booloo def seen bop ben fas yéene ànd liggéey sëñ Tuubaa yéen bi lool mom sëñ Falil Fall neena na sëñ bi xolom sedd na ci guñu sëñ baa ñaan nak fu am fu média di egg seen média yi yal na fa àgg te ànd ak barkeb sëriñ Touba bi ànd ak barkeb Cheikh Ibrahima Fall nee jërë jëf mu mel ni bitim réew am na ñu ma woo ñoo xam ni ña ngay toog di ko seetaan en nga xam ne fi na ñoom ñii li nga wax ci média bi dañ koo jël def ko en mu mel ni ña toog ci seeni saal ak ñi ne ci euh, liggéeyukaaya di liggéey ñu ngi koy xool seeni appareil ñi di ko xool ci seeni télé loolu kon Fall day dëggal li nga wax ci média bi nañ bi bi ma fi ñëwee Souleymane Amar mi nuyoo nan daanaka mat nan fanweeri caméra yoo xam ñoom ñëpp dañoo lëkkaloo def ko comme jotaay bii nga def di di seetante ci seen biir ba li nga bëgg lépp sëñ Muntaxa bëgg ko ñu def ko kon fànn sëñ bi ñaanal bu baax a baax rek waaw ba fan bëgg mu yegg fa nee lim li ñaanal kon yéen média bi mooy seen bëgg ngeen am ko rek ba man koo liggéeyal sëriñ Tuubaa nag muy waa réew mi ak waa bitim réew nee loolu bu ngeen ko amee seen suñu xol dina sedd nee na ngeen man kon li sëñ bi bëgg rek te yàgg ko ko jëfal lool nee jërë jëf foofu ngay wax ci sëñ Falilu Falilou Fall Cheikh moom sëñ Cheikh Fall Khady Gueye di nuyoo kon ñu may sëriñ Falilou mu nuyoo moom sëriñ Cheikh Fall Khady Gueye jàmbaar ñi desoon ca xel moom ngay gis mu sëgg noonu. waaw jërëjëf Fall jërëjëf Fall.